itamit ñu ànd ak sunu goro nag Aziz Ndaw mu taxawal fi assemblée nationale tabarkalla tabarkalla ah, yal na yàlla yokk waaw yal na yàlla xeeb dolli mu mel ni itam lii tey su amee Cheikh El Hadj moo ko bëgg ndax moo bindoon Cheikh Sukayrij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 bëccëgu yaakaar la bëccëgu yiw la mu mel na am na lu ci Cheikh El Hadj bëgg moo di mbégu bëccëg bi yóbbaale weer wi jëfin la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 kamu ko war dénk bu bu bu bégatul am na lu xew parce que dañ koy dañu koy dénkaane boo ko dénkee ka ko war dénk nag bu sa xol féexul rekk am na lu xew loolu moo tax Cheikh El Hadj Malick bëgg bés bi di bésu mbég waaw kenn ku ne bég ñu xam ko ci sa kanam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 tabaarkalla te sama maama meloon noonu maa ngi koy waxtaan ak moom léegi ndax Cheikh Hadj Malick ku mënoon sañse la tabaarkalla ni baatinam leere noonu la biteem leere woon tabaarkalla wallaay ba tax na ñépp formation lañu ñu amee woon yàlla xam na ko ba màggate ko tey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 waratuloo ñaw jikko waratuloo xëccoo waratuloo xul waratuloo saaga lu ko mooy rekk tuuma topp la waaw mu di bëccëgu yaakaar ndax dañu ni kat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 noon du ko ndokku jamono du ko ndokk boobu war na man noppulu yàlla noon du ko ndokk ndax gisu ko jamono du ko ndokk ndax ndokku jamono mooy ba ay ba mu koy man ay ba mu koy man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 mooy seen cër yàlla leen ko defal njaboot war ko xàmme ndax nekkul ci tës tës xër mi ngi ci xàmme waaw ndax fa inna qalila al xubbi fa inna qalila al xubbi bil wa inna kasira al xubbi bil jahli faasidu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 waaw nee nasa nas ba mu jekki rek ne ma ñëw di ko ziyaare si nag nee na ma ne ah naa ko nëbb ne jël ko rek dugal ci sama biir mbubb ne ñëw rek tabarkal la teraanga jeeg nuyoo beeg nee na waaye rek nëbbu gaa ngi fi waaw maa ngi ko ko nëbb nee naka la ma ñaanal ba may jóg rek oom bi oom sama oom lonk njëll bi mu ni tipp dagg wallahi nee na ma ma def la ca aay wocc ko fa waaw nee na wuti bunt ba ba di ko bëgg a jegeñ mu ni ma Babacar ah. nee na ma ni temm taxaw mu ni ma kaay jël sa caq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 mooy kilifa yi fi daje te jëmmam moom sunu kilifa gi toog indi leen fi kii toog tey di doom ci sayit Cheikh Ahmed Tijani jataayam bi tuutiwul jataay bu rëy la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 ndax sa papa El Hadj Abdoul Aziz nee na ñaar sa turandoo attanu ko attanul Babacar si ci bàmmeel Cheikh Tidiane si ci cellule prison attanu ko waaw moom bi moo ma ko wax ni ma kon nag kay génn ma ne ko ay ca bopp ma jël sama bagage topp ci moom kott kott yollu yollu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 daanaka li Serigne Cheikh wax doy na fa tabaraka allahu axsanu alxaaliqin ida qalat xadami fa saddiquuha fa inna alqawla ma qalat xadami te daanaka wax bi nuyo rek la ak dolle cant njàmbaase ko li nga xam ne moo du waxi Cheikh Sidi Ahmed Tijani bi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 kon moom it ameel nañ ko cant ak gërëm ko di won jullit yi li nga xam ne yamul ci loolu it jëf na participation pour dimbale ñu ko ci gan ñi gannaaw bu loolu wéyee ni sëriñ Aïssa yabal si na sëriñ Abdoulaye caw ak sëriñ Maam Alsaan ak secrétaire bi nga xam ne mooy kàccibul amam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 wa an taxmurana bi sawaabiri fadlika wa karamika xaalan wa maalan abadan sarmadan wa an takuna lana waliyan wa naasiran wa muinan fi jamii axwaali raxaai wa shiddati wa tatxafana bi kamaali alcaafiyati wa dawaami alcaafiyati wa izzi alcaafiyati walistitaari min jamiici nawaaxina bilcaafiyati innaka waliyu dalika kullihi walqaadiru calayh wa anta calaa maa tashaau qadiir wabil ijabati jadir allahumma innaka taalamu dunubana faghfirha wa taalamu uyubana fasturha